woo leen yéen waa gi nga xam ne mooy kër Cheikh Modou Bachir am sëñ Tuubaa moo sëñ Daaru Minaan gi na fi ñëw recevoir leen dem ca mbooloo ma loolu ab cër boo xam ni cër bu mag la la ko waral nag mooy seen pas-pas ndax mën naa ni comme ñu fa yónnee ñu ñëw fa rek laay wax ndax lépp sëriñ bi la ma ne ko lañ fa gis daal mooy dëgg lañ fa gis dëgg googu ngeen nekk nag te mooy li gën a sëriñ bi mooy jàng jàng jàngale yar liggéey jaamu yàlla jàpp ngor ci ngeen nekk moo tax sëñ bi beral leen lii mu leen beral tey kon nag li ñu ci wax rek mooy fas yéene tënkuwaat ci liggéey sëñ bi fetliwaat ak laxasaay ci liggéey sëriñ bi te xam li ñu bëgg lépp liggéey sëñ bi rek moo ñu ko mën a may ñu leen di sant bu baax nag yéen mbooloo mi tasoo suman ak fu ci mën nekk Sénégal ak ñi nga xam sax ñi ngi nekk bitim réew rawatina sëñ Boubacar Diop mi nga xam ni mooy jëwriñ ji ndax li ñu leen wax rek wax sëñ bi mooy sëñ bi rek la ñu ànd ak fas yéene mu rax dara tàmbalee ci sëñ bi yem ci sëñ bi su ko defee ndaw yi nga xam ne ñëpp itam ñi ngi ci biir tasawuf subaan ak seen waajur yi nga xam ne ñoo leen ci xeetal ñu sant leen gërëm leen ñaax leen ñu gën a góorgóorluwaat te xam ne loolu rek mooy am mooy la am solo li ma leen di wax itam yéen ndaw yi mooy li ma leen di wax ba ma fa ñëwee ginnaaw bu ngeen seen waajur jur leen fa leen war a juree dugal leen ci daara ji ngeen di jàng ba am seen xam-xam ñi mokkal alxuraanu karim bay jàng xam-xam ngeen boole ci sàkku seen ngërëmi waajur ndax nit su amee ngërëmi waajur lu mu bëgg dina ko am waaye su ko amulee mënta am dara lu baax kon li jiitu mooy ngërëmi waajur ñu sàkku ko sax ci suñu ko amee di ngeen am lépp kon ñi ngi sant bu baax xam naa incha allah suñu jullee ba noppi ba xewlu danañ gën a yaatal waxtaan ci kanam yàlla waaye ñëpp gërëm nañ ñëpp sant it waa kër bi ñi nga xam ne ñooy waa kër sëñ bi gàttañu gi ñu gàttandu ak yaatal gi wàññiku na lool kon ñu sant bari leen seen cant a baax ñaan mu yàgg ci barke maa ngi sant itam sama euh, gaay yi ñoom Ousmane ak ñi ànd yooyu sama jëwriñ ci sëñ Coro mi Coro sëñ Badou Sey moom itam taxawaay mat na rafet na waaye lépp nag jëwriñ la ndax bu leen wóolul woon bàyyi leen ngeen liggéey loolu dama naa waaye lépp rafet na te lépp jot na kon ñi ngi sant ñëpp jërëjëf sëñ bi xanaa suñ kàddu gu mujj rek di la fésal ni suñu xol sedd na guyu suñu xol dal na yàlla na la yàlla fay Mbàkke sant nañ la baax a baax jëf Mbàkke